ci biir li ma métti ñëpp di ci biir internet bi li point com. li ma métti waa Sénégal waa ñaan la mu dem da wax ju ñaaw wax ju ñaaw na wante man Ouzin Keita xam nga ma gën Bal sant ba nit ñi ma xel kon mbokk maa ngi ci xol doomu aadama ba may tudd tey Ouzin Keita xaw ma Ouzin bu ndaw la damay di su sama waaju moom a tax bolu ma si dara manquant xaw ma lu bon def ma lu bon foog ñu wax si man ne wàññi sama bàkkaar waaye nan ma yërëm te sutura ma dama am ay mbokk te wàññi wax ju ñaaw ji ma am famille am am famille am ay soppi amatuma papa yaa yàlla desee sam am famille di suñu famille xamuñu am xamuñu ko ay ñi ay làkkan lañu ay géwoon nan waaw yàlla baax naa si kaw si kawam day baax. Ouzin bu ñu doon laaj lan moo la gën a métti sa ngay wax. ma gën sama àdduna ma gën sama àdduna internet bi wax ju ñaaw ñuy bind ak sos la sosal di la wax lan. ju ñaaw ju rëy. yow mi waaw. wax ju ñaaw nañ bind mais damay dugg ci internet bi damay bind damay dugg damay sama xol day tàng damay tëj sama nit damay jooy yenn saay waaw du tax ma xaadi du tax ma daw ndax métti nga daw bu neex rek ma sa fekkee. naa jàpp taw baay lu waa lu mu baxlaat man Ouzin Keita dina dina fekk si ndax fitu moo nekk si man. Ouzin ñu ngi lay jaajëfal. ok merci beaucoup nañ jàkkalawaat waaw du ma mus a bàyyi. Ouzin Keita Ouzin Keita daw. ñoo xale bi daw na. du ma daw naa ko defante yéen ngeen ma ko vuruj ma leen koy faral ngeen ma ko ko doon ndul foo